mais bu fekkee ni dañuy jël ay euh, étranger ñëw jox leen li gën a am importance ci mbay mi nationaux yi nga xam ne ñu ngi góor góorgóorlu boole ci seen njaboot jeunes yi ñu leen di woo di créer ay université professionnelle yoo xam ni dañuy wax ni ñëw leen ci mbay mi waaw te boo bayee ba pare yow mënoo li nga bay munoo ko jëriñoo day yàqu mais nga bàyyi ko dem wuti leneen donc vraiment euh, dañuy ñaan état bi ñu jël ci ay pexe yu rëy parce que pexe am na mais koo xam ne kii mënul liggéey wax dëgg yàlla bu ñu ko tegee fu ñu war a liggéeyee dara du sotti ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur boobu te defuñu résultat mënuñu indi ay pexe lu dul euh, aveu d'impuissance koo xam ne kii daf la naan yàpp bi euh, dafa cher ndax waa Mali dañu am problème euh, gis nañu garab yi demoon nañu yokk ko fii ak yeneen ak yeneen huile bi même chose mais huile bu fekkee ni da nga ni huile bi euh, euh, emballage yu ndaw yi moom la ñuy wàññi mais yeneen yi euh, kenn du ko non loolu amul lépp la ñu war a denrée yu stratégique yooyu xam ne sénégalais yi tous les jours dañ koy jënd yooyu la état bi war a encadré waruñu encadré yii bàyyi yi wala ñu encadré yenn parti bàyyi yenn parti diwlin mënuloo ni diwlin da nga koy da nga koy surveiller di ko réguler ba pare naan diwlin bi nekk ci emballage bi moom laay réguler bi nekk ci emballage bi du ma ko réguler mhm. yooyu ay waxu caaxaan la vraiment dañu bëgg ñu jël secteur yooyu jox ko ñu xam ni wax dëgg yàlla am nañ ci ay pexe loolu la ñuy ñaan état. alors maître euh, euh, bu ñu jógee peut-être ci ci soble si ñu wax coow boo xamante ne am na puisque ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci njaayu mburu ñi ngi dànkaafu di wax ne ku moywul daañu bank seen loxo wala dinañ dem ci tabaski boo xamante ne mburu du am euh, parce que euh, dafa am décret réglementation boo xamante ne état def ko xaatimoon te joxu ko cër euh, bokk na ci njëgu mburu mi bokk na ci pois bi ak yeneen poñ yoo xam ne ñu ngi koy jàmbat naka nga ko gisee waaw ñun dégg nañu jaaykatu mburu yi boulanger yi suñu mbokk boulanger yi moo xam waa fédération la wala moo xam ay regroupement yu bees yi am mm-hmm. li ñu bëgg mooy yokk njëgu mburu waaye yokk njëgu mburu nag dafa am fu ñu ko war a wékk mais dooni rek euh, parce que bu njëkk dañ doon wax farine bi moo yokku il faut ñu yokk mburu bi or farine bi li ci yokku atteindreul atteindreul niveau bi nga xam ne euh, niveau minimum la boo xam ne bi état bi daf ko fixé woon damay joxe benn exemple buñ nee farine euh, prix bi gën a kawe seize mille la le sac actuellement mu nekk ci quinze mille ñii jaaye jaayee quinze mille cinq cent ainsi de suite mais ñii jaayee quinze mille bu ñu yokkee ba quinze mille cinq cent farine bi yokk na foofu mais taxul ñu atteindre plafond bi nga xam ne war nañu xoolaat njëgu mburu mm-hmm. or njëgu mburu dafa yàgg ñuy wax nee nañu euh, ñi nga xam ne ñooy jaay mburu bi boutique yi yooyu li ñu leen di fay dafa cher parce que defe naa mburu bu nekk 40 francs lañ ciy fay xëy na loolu dafa cher ci boulanger yi mais nañu toog waxtaan nañu defoon en 2017 parce que 2017 amoon na ay assises du pain ñu ñëpp ci la ñuy participer woon vraiment ñu étudier problème yëpp problème yëpp xam nañ leen mhm. solution moo ci nekk te mhm. solution yi ki ci jiitu mooy état état réglementaire boo ko tegee boo tegee réglement da ngay koy appliquer pour nga appliquer ko nag il faut nga am ay moyens yu ko appliqué maanaam agent yu doy et puis nga euh, vraiment wone ni lii ku ko appliqué wul dama lay sanctionné yooyu yëpp état du ko def parce que ministère du commerce jumtuwaay yi ñu ko war a jox pour mu mën a efficace bu njëkk dafa amoon contrôle économique loolu amatul bon agent yi fi nekk vraiment jàmbaar lañ mais barewuñu amuñu ay moyens te loolu tant que defuñu ci moyen gis nañ États-Unis ak réew yu mag yépp ministère du commerce ministère bu mag lay doon xam dañ leen di jox ay jumtukaay parce que commerce consommation ak production ak distribution yooyu yëpp ci la bokk maanaam dundu askan wi yëpp ça tourne mais mais bu ñu la problème bi fan la euh, ci boulanger yi wala ci ministère du commerce bon ci ministère du commerce maanaam ñoom ñoo secteur bi ni ñu ko war a yore wuñ ko noonu boulanger yi fu ñu toll ñu ngi bëgg yokk mais yokk dafa am fu ñu koy wékk dafay am fondement fondement bi mooy nañu wax structure njëg bi ñoom actuellement bu ñu jaayee ñaata la ñuy am ci mburu bi maanaam bu ñu calculer structure bi bu ñu nee ndox mi li ci dugg lii la farine bi lii la levure bi lii la ainsi de suite main d'œuvre euh, ouvrier yi lii la mi ngi ñuy revenir baguette bu nekk cent francs léegi bu ñu fayee distributeur ñun danañ ci am trente francs xam nga loolu mooy structure prix bi mais ñoom nangu ñu wax structure prix bi te état bi wàññi na TVA bi ci farine bi mais ba tey doyul parce que intermédiaire yooyu ñuy bañ jaaykatu mburu yooyu ñuy bañ boulanger yi bu ñu buggee ñu supprimer jaaykatu euh, mburu yooyu ci boutique yeeg yooyu mais il faut ñu am kiosque yu doy affaire kiosque yi essayé woon nañ ko fii marché wul mais mu def façon kiosque bu nekk mhm. defar mais dañu gis ko ka doon jaay mburu ole mu jaay mburu rek dana jaay sardine dana jaay mayonnaise dana jaay chocolat paaka bu sal day dugg ci douche bi génn ñëw euh, raxas loxoom sax daal di commencé dagg mburu bi di mhm, jaay mhm. bon boutique yi euh, kii day jaay lii ba pare dagg même paaka bi mu jaay ci mburu donc setul